dañoo yore ñaari oto ñaari oto lañ yore dañu yor oto bu mag ak yaakaar naa ne benn véhicule boo xam ne yaakaar naa 307 la te ñoom ñëpp dañoo nekk en civil ñëw dugg foofu tàggoowuñ romb borom kër gi si biir lijjantiwuñ leen faalewoo leen te am na si ay ASP ñëpp duñu ay alkaati te si biir loolu même buñ leen jël di leen yóbbu tamit li gën a ñaaw si li alkaati yi def jàpp nañ xale yi naqaral nañ leen métital nañ leen si ba leen yóbbuwaat am na si alkaati goo xam ne mu ngi génnee si kàddu làmminam naan yéen doo leen bandi ñun ñooy bandi tey lañ ñuy saaga ngeen gëj a fayu tey ngeen gëj a gis lu mel nii tey dinañ leen torture dinañ leen dóor ba ngeen bëgg dee te jàpp naa ni loolu ñu waxoon lu ñu préparé woon la ndax yóbbu nañ xale yi dóor leen ba ñu bëgg dee kenn ki ñàkk na bakkanam keneen ki sonn na ba bi ma ko gisee léegi bi ñu ko woowaatee enquête bi ma ko gisee da doon jooy yaram baa ngi métti mënul toog mënul taxaw te justice nag foofu ñaan nañ justice def liggéeyam foofu bu bi am na lu ko metti war nañ koo mën a yóbbu dem saytu wér-gu-yaramam ndax ku ñu jël ay cours dóor la ko ba mënoo toog mënoo taxaw ba ñu indiwaat la enquête toog sax mënoo ko ba alkaati bi ñu ko indee enquête sama kanam maa ngi gis dañ koo lalal utal leen ko mat laa ñu jox ko mu tëdd loolu la ko alkaati yi doon wax kon loolu doon na lu metti euh, journaliste journaliste euh, teg na bool c'est bon c'est bon voilà léegi may ma may ma daane may ma daane ñëw may ma daane waaw maa ngi rek li ngeen mën a wax yëpp dinañ ko wax oh oh. gars yi gars yi bu leen yàq conférence maa ngi leen nuyu calme leen calme leen ba ñu pare ah. voilà voilà Sow parce que des fois bu fekkee ni ñu posé benn question ñu tontu ko jarul xale yi nga dalal seen xel fi lu commissaire wax donc après loolu la. est-ce que am na yeneen question. ma leen di tënk. laissez les gens poser des questions. Ah, ah, ah. bàyyi kële mu tontu quoi parce que mu neen fekk na. oui oui. Euh, euh, mm-hmm. prochaine étape bi lan lay doon.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

jàmm mën a am sinon jàmm am loolu moom am wax bi mënut neex. balaa balaa muy def français menaces yi ñuy wax ñuy wax man jot naa ay ay audio la audio yow ba nga demee da nga ko yóbbu dikk dañ la wax bul waxaat ci audio yi wala Amnesty International Seydi Gassama woon na ma léegi jot nañ ci. avocat également maître Mbeng commencé def xaar nan euh, ce que je voudrais dire c'est que par rapport à cette situation dramatique là les cœurs sont lourds voyez la réaction de ces gens là derrière moi c'est des réactions de la famille des amis de Seydina Mohamed Diop et que donc cette colère là rien ne peut la calmer qu'une enquête diligentée qui va situer les responsabilités et identifier ces assassins là et les sortir de notre police nationale et les sanctionner au vu et au su de tout le monde on n'acceptera pas que la chose soit escamotée ou bien qu'on essaie de négocier ça autrement. La seule solution pour apaiser le cœur de ces gens-là qui sont là, carrément agités, c'est que une enquête soit diligentée et que donc la justice soit faite, que les assassins, je dis bien les assassins, les assassins de Seydina Mohamed Diop soient identifiés et condamnés. Nous n'excluons aucune action. Nous allons, si la chose traîne, organiser des sit à l'intérieur de la police de Pékin, au tribunal et partout ailleurs. Nous allons nous faire entendre, nous allons organiser des mobilisations populaires pour amener justement les Pékinois de tous bords à se rassembler pour exiger justice pour Seydina Mohamed.